Thank you. wëlbati bu ànd ak sang yi tedd sang yu tedd yi nga xam ne tey ñoom euh, lii waa ji waxoon ne asxaab yi gën na tuumi li Cheikh Tidiane waxoon waaye maam Xalifa awlaad yi gën na tuumi la waroon la wax mooy addina bii tey bu amee tey ñoo xam ne ni leen di rek di leen déglu rusu ñoo dugg ci kaaraab bi rusu ñoo dugg ci taxi musu ñoo dugg ci sareet musu ñoo ci àll bi di ñaan ñaan jiw ci biir nit ñi di di di jullee réew ci ngénte ñi ci ngénte jullu doom yi ak di may soxna yi tey jii bu fekkee loolu moo doon démb njabootu maam xalifa des jii toog ñoom ñoo ci des wala bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ci des kon ñuy bëgg ci kontaan bu baax incha allah bu kilifa ñëpp ñëwee ba toog ba nga xam ne man allah kenn desatul ci jotaay bi dana gën a yaatal waxtaan yi ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo dugal seen loxo ci bis bi jàppale ñu bis Mame bi mbooleem moo xam taalibe la moo xam doom la moo xam sët la moo xam soppe la moo xam membre état la ak ku mën a doon incha allah danañ ci ñëw kon duñ def lu dul màggal jëmbal ji Ahmed Ababacar mu ñëw coow ci ndigalu woy juram sëñ Mouhamadou Arabi bu ko ko mayee mu joxe daw ñu ubbi jataay bi huitième journée culturelle bu édition bu maam Khalifa Niass kon sëñ aayam ak bismillah bismillahi rahmani rahim يا همة السيف اهدنا بهذا المعدن والتعب فيه بنصرة تأتي لنا بالصبر mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dañuy ñëw rek ngir yëkkati ndigal lu jógee ci suñu kilifa Seydi Mouhamadou Adama Khalifa Niass ngir ñu ñaan yàlla ndax yónnent bi nee na adduaawu silaaxul muminin wala mu waxati ne adduaawu mummul ibaadi ni yuur amee solo ci nit xam ne lu lu jógee war lu fi dund ñaan yàlla ci noonu la amee solo ci mbir ndax lépp la dund te ñaan yàlla jéefu ci te ngay julli defoo ko fenn ni ni ni tabax xam fa ndas kon ñu ñëpp ñu bokk jàng fatiha ci kitab jàng ni sel ëccu wul ko kenn buñ ko jàngee ba pare ñu teg ci ñett salatul fatihi ñu def ko xadiyee maam xalifa tey tey ndax moom tey mooy maam xalifa tey ñu ñaan yàlla def tawasul ci xaaj abdoulahi bi wajuróom def tawasul ci sëñ ahmad tijaan yi waaye def tawasul ci rasulillah sallallahu alayhi yàlla nangul ñu suñu bés bi te fulete ko te aar ñi nga xam ne ñoo ko taxawee sàmm leen yokk seen wërsëg yokk seen maqaama te jëf ji yëpp yal nay ngir yàllay kese yal nay ngir yàllay kese yàlla bu si génn benn mbir am pour yàllay kese ñu jàng fatiha ñetti salaatul fatiha bismillah Bijahi aina muhafid fima kumkandada Ya sa'adatan dan siadatan fit azab Ini adik lima yukum mustasirkan Ya manduhu kulat amani wa amat Antum kulat amirin ya khawasal wara Aunan lana nasran hayanan an hajab Aunan lana nasran hayanan an hajab Aunan lana nasran hayanan an hajab Bijahi wahadina fil baraya Bihaibatin wa وابسط لنا كل خير لا ينتهي بالإيمان واحفظنا بحمانا من سوء صرف الليالي واصلح لنا حال كل من كل اهل ومال واحفظ إلى دين من منزل وعيال وصاحب ومريد وناصر وموالي ثم الصلاة على من أتى حتما الكمال وناصر وسهاب وآل وموال بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا إله إلا الله nga xamni sama lamine touti na ci melal ni mu mel waye am nga lamine du ko gëna ko wé ta waxam gëna wër ta su ko waxé ñepp gëm ko mom la bëgg mu introduire ahmad khalifa des ci baam yu adam bismillah assalamu alaykum wa Cheikhul Xaaji Maalik radiyallaahu anhu buñ naawoon di woo baax mu ne ndax mbokk yaa ko wax buñ ne diwoo mën a jàng mu ne ndax jàngkat yaa ko wax bokk na ci li biir ci biir réew mi dam yëkkat ñooy atte ñu dàq jàng dam yëkkat yi ñooy atte ñu dàq jàng diw diwoo ko man waaye kii di Ahmed Khalifa Niass ñu bokk benn baay daanaka benn ndey maase ma magee ko tuuti xam naa ci moom lu bëree bëri waaye tuuti laay wax ci moom gis naa ci moom jikko yoo xamee ne mënul doon lu may jikko yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jëriñ mu baax ku la du jëriñ ku la faale faale ku la du faale dafa bokk ci jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tooñ la nga amam doole waroon fay fayoo nga def ko loola it bokk na ci jikkoom moom it moom Ahmed Khalifa ñaareel ba mooy sama baay xamoon na wërsëgam naka yi nii lay mel ndax ñun ba ñuy xale bu bët setee sama teer ba ñuy nuyu si sama baay kenn ku ne mburu lay dagg di la jox sopp moom bu ñëwee mu ekkati nii si mburu jox ko ñu ko jàngal la dañ leçon bu sori na ko mayal nii mayal nii ba njàng mu ne ay moom jeexal na ko may na ñëpp loolu la doon jàngale tey ñaareel ba mooy baax baax rek ci moom la yem ndax baax mooy bokk ni ci mbaax boo boo xam ne la ñaanee nga maye baax waaye bis boo amee wërsëg lay jërëfal kaay leen yëf yi ñëw na yàlla na loolu moom gisaguma ko lu ci moom loolu gisaguma ko lu may ci moom dama koo jege lool ñu daan am lu ne mu tuddee ma doom yoo xam ne présenté nañ ko léegi avocat la quatre-vingt-neuf lu jub yàllaa ñu boole ñun ñaar kon yaakaar naa ne réew mi xam nañ ko bu baax bitim réew xam nañ ko bu baax liggéeyal na réew mi waaye mbaaxam gi ci ay bokkam la ko jëkkee loolu laa bëggoon a wax sunu jigéen Khady Mbengue muy doomu Khalifa Niass tarxiis tànk bi dam Ahmed téléphoné na ku ne ne nañ ko indi Ndakaaru ma ko ma yor ko ba gis naa ci moom loo xam ne kaw ba kenn ñi biir du faa dem ndax boo demee ñu na la indi waaye waxtu wii lay jël cartable buy ko ba mu fees muy dem ci taalibe yi di joxe jiwu loolu itam bëri kon wuude nee na maanaam waaye yenn wax yi wuude lu wax ci bëri mu feebar duñ ko ko nangul ndax day naan der ba ndaw wala soxla ñu ngi koy gërëm bu baax ci taxawaayam waaye di gërëm ñu naan rakkam Sidi Mouhamadou Amine borom Walfadjri di ko waaw ci ci télévision bi muy Walfadjri moo amoon doléance loolu mooy doon sama doléance li gërëm ñu sundur wax ngeen ma ko ne ma am na ku ma téléphone nee na woon bëggoon naa ñëw léegi yow xam nga nañ nañ lan lañ mel ak moom lan laa mel ak moom ak njabootam kon nag yaakaar naa ne ci tënk lool am na tali ba jëf kaay taxaw ci say kanami doom te doo rus say kanami mag taxaw alaaji Ibrahima nee na mi lay sant mi nga xam ne fi teewal di la gërëm di la sant oo saa su di ko yónnee ay garabu ordonnance te ku lay jëndal ay ordonnance kat bëgg na nga wér kon nag Ahmed Khalifa Niass jege si asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu Amen. leen di nuyu waaye kenn mënta indi nuyu ci kër gi te njëkkoo xalifa alaaj Ablaay Ñas mi nga xam ne mooy suñu premier xalifa tam mate te du ko doon mukk ba bañ koy fekk loolu fi liggéey liggéeyam ñu di ko jéem a continuer kon ñun ñëpp dañoo wax ne jërëjëf alaaji mu ndaw moom ñetti yoon ku ko wax yàlla mu gudd wax te yàlla gaaw et ngeen may ma ma teeru sama mag sama goro xarit sama soppe alxaaji Moustapha Cissé Pire teeru la sëriñ bi kanam na ñëpp jóg teeru la sëriñ bi kanam Omar Omar bismillah bismillah ma ñëw Ñas xalifa alxaaji Babacar Ñas borom wilaaya bi nga xam ne ci kër gi dund xalifa suñu xalifa alxaaji Omar Ñas bi nga xam ne dafa boole xam-xam ak maandu ak ragal yàlla ak bëgg yonent bi ak bëgg Cheikh Tidiane ak ñoom Cheikh Tidiane ak alaaji Amadou bi nga xam ne mooy leer nu kumaan di suñu leer ñun ñëpp alaaji amul ñes kaw la borom nu kumaan moo maam moo tax moo xam seen ci alxaaja aliyu faridu zamani bi nga xam ne moom moo njëkk a nekk secrétaire baayam baayam di wax muy bind mu jox ko mboolem sekkare yi mu yor ko te mel yoru daal ngëneeli xalifa alaaji Ibrahima nag jarul ma di ko toog di ko wax ndax dafa lëmbe àddina bi wër géej gi ak jaww fees suuf ci mbooleem anam ñëppay sama mag waaye moom dafa di sama mag di sama xarit te loolu ñëpp xam nañ ko booba xale yi ñu doogu ñu dee ndax ba yàlla mu war a jël soxna mi ngi ko magee na fukki at ak ñett mi ngi ci juróom-ñetti fukki at ñaar maa ngi ñaar fukki at ba ngoonee dem jël soxna sama baay daf koo oo jël sama loxo teg ci ne ànd ñu ànd ba mu ca taawloo maa toog ñu tudd ko tuddee ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bésu ngénte loola am na suñu dooy baaje bu ñuy wax jay mu doon di laaj njañ sa ba man fekk boobu yoru moom moo ko jox mu summi sama simi sindi loon jox keroog ba nga xamee ni arab yi bàyyam daf koo yóbbu ndar mu jàng ci sëriñ Musin Jóob ba mu ñëwee ñu di ko teral sëriñ bi ko yóbbu woon bi ko jàngal ma yegg léegi ne ko dama la yóbbu màkka yow mi yóbbu suñu jàngal suñu taaw ba mu mokkal ndax taawu Elaaji Ibrahima sama taaw ma ñëw nag loo xam ne yéen xamu ko ma ñëw génn tàkkusaan fekk Elaaji Ibrahima mi ngi taxaw ci buntu kër gii mu nekk ma ne ko ana Muhammad mu ne mi ngi fi woon ne oh, oo ko mu ñëw mu ñëw ma ne ko jël naa ko dama ko yóbbu jàngale dama yóbbu waxoon ma loo koy doy waxuma foo ko jël dafa ne jëlal na ma jël ko amul carte amul carte d'identité amul passeport ma jël ko jëlee ko fi yóbbu ko Paris jëlee ko fi yóbbu ko ba Màkka te amul benn këyit benn këyit yóbbu ma dégg ko Mouhamad Saleh Al Ghazali donc nag moo nekkoon secrétaire général du islamique mondial ne ko kii sama taaw la dama bëgg mu ne ko kuutal ëllëg ndax kër gi nga xam ne dañ cee jógee xam-xam moo ko fortement te du fi mën a bàyyi jaay mu ñu kuutu defaral ma ci moom xam-xam mu jël ko yónni yóbbu ko yónni eh, Madina Munawwara gën salaatu sama dëkk mu di fa jàngee di siyaare yonent bi juróomi yoon ci bis bi wax dëgg yàlla yëpp xale bu baax la gërëm naa ko ndax jur na tuddee bàyyam jur doom tuddee ko te man ta passé loolu ki jur doom tuddee bàyyam jur doom tuddee la ko kooku wax dëgg yàlla moom li ko war def yàlla ko yàlla musal la ci noonu bépp bu koy fexee ndax gone wala bu tekkee ba bu bañee nga tekki dañ lay fekk ci ñoo xam ne buñ la fekkee ci ñoom nga alal waaye ni ñun yàlla bu nekk ndox bay alal suñ doom wala ñu di ko yàq ndax kon ñun ñooy yaratal di nuyu nag ki nga xam ne du wax ne sama mag la du wax ne sama rakk muy cheikh alxaaji Mouhamad Arabi Niass ibnul Xalif alxaaji Mouhamad ndax euh, ay seex la sama seex la ñu judd ay gone moom magante ca boobu ba léegi macha allah te loolu jàngal nañu jàngal nañu xam-xam mën a wax ci benn bismillahi rahmaani rahim ay heure yi heure mën cee bind ay téere téere ndax alxuraan yëpp dañ koo tënk ci faatiha jël faatiha tënk ci bismillahi rahmaani rahim jël bismillahi rahmaani tënk ko bismillahi jël bismillahi tënk ko ca miim nga jël miim nga dugal ko ca baax la jël dugal ko ca tomb ba lépp tomb la ngeen xam kon nag xalifa xam-xamam alquran attention nag déggkat yu ñaaw yi bu ñu wax ne damaa wax ne waxam wax yu la déedéet alquran la maanaam mooy bër bër boo ko joxee xale yi xale Ndakaar boo leen joxee bër boo bëggee xamal leen ne ca gént ga la jógee dañu ne non non non bi muy génnee ci ci battu nag duñ mën a xam paquet bi ñu paqueté mu seet bi génne ci frigidaire mu génne ci wéeru nag non ñoom boobu mënuñ koo comprendre su fekkee ne alxuraan moom mooy e meew salaatu fàttee mooy e soow bi waxee xalifa mooy e tax bi te tax bi mooy bër ñu def ci mburu mu nii lool xoolal il faut que nga tëj ci tàmbalee kaay mooy ba mu waxee ci téere bi mu bind 1929 muy juge bi ngeen doon wax mu ne man xassahu bi waadihi lbayaan min bayni kulli lbiiri wa sudaan dellool ci arrahmaanu alama alquraana xalaqa al insaana alamul bayaan bayaan na ko xam-xamam xarifaa ko alquran na ko li ci def nag ma bàyyee leen. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku jullit yi mbokku jullit yi fi teew ak ñi fi teew ak ñi ko war a teew te teew ñi fi ñëpp ñu leen di nuyu ci kàddu gi yàlla boole muy asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu dafa doon ne fi ñu ma dugal ma fàggu. diggante Seydi Arab Niass ak Ahmed Khalifa Niass buñ fi joxee kàddu taalibe Alaaji Babacar Niass ne ko waxal dañ ma bëgg a jàpp fii waxuma am na li ma bëggoon a waxaat dee dinaa ko ba déwén su ma fi yàlla indee maa fa kàddu wax waaye xaj ma ci diggante ñaar ñoom ñu tax màgg dafa gaaw salaamaaleykum. voilà ñu ngi ñu góor bi comme man maa ngi doon ñu góor ñu ngi ci waawaaw euh, dama lay agg si que yàgg naa bëgg a ziar te yàlla defal ba occasion bii.

itoba owaati daali ko daali bi jeex bis bu dee ma yëw ñaan si bi daali bi jeex mu dalal ma ala xaar sax wala xaar sax mu dalal ma tabarakalla si moom la ñu tuddi bi mu ni ibnu xalis huwa awal man waqafa واستوقف وبكى واستبكى وذكر وذكر الحديث والمنزل في الاجتماع. نحن نقدم في فادتي حديث حبيبي ومنزلي بشخصي وبين الدحول فحوضي فتوضح فنقراتي لم يعفر رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال يقول سيد النور هو أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى فذكر حبيب المنزل في بيت الله ما شاء الله waaw daal di ko xalis parce li ko soxla suñ àndalee ma taxawal ñu taxawal jaar mu ne ko doon nag moom bu jooy suñ soppi yi nga xam ne ñu jóoree te fuñ soppi fu ñu nekkoon bu sax bu sax ci ñu waat day ne taxawal na xaw ma mu ne kon woo moom wax fa was ta wax fa woo nga peer was ta peer wala ka xay man man dina fi métti waaye góor yoo xool tabaarakallah yaa ngi mu def góor gi tabarkàlla neex a gis lool kër ga itam ah bu ñu mosaan jàng si wax dëgg yàlla dañuy dégg ba suuf dikk rek laa ñu def daal tabax te ñoom bu bu ne mooy bokk ci barke bu bu benn wax fa tabarkàlla baax ah loolu ma dégg bu mën a xam sax di xaw a xaaj la mooy jóge fa bu ma war a wax fii de sa sa makkaan rek waa aada ñu sabala la rek ma ni ko waaw mu ñëw mu wax ma mbindum Cheikh Ahmad Tidiane Chérif war ma kawaw Cheikh Ahmad Tidiane Chérif war ma dànnu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif war ma yu bari yoo xam ni ci Cheikh la jóge yoo xam ba mu demee Faas te la ko ko waa Faas jox ndax xam daraja yu koy yëpp bu ci nekk teg ci sa loxo rek di nga daaj sa te loolu cosaan la li ñu jógee ci suñu Abdallah gis bu ñu ngi ci wax dafa am Abdallah bi bu ñu ngi ci wax soo bàyyi kenn dafa di sëñ xaaj ba yi seen téere ñuy wax kaa nekk damaa bëgg nga seet kenn ci sa xale yi ku rafet la ñun mu yow ñaata ko soo bàyyee dama am saa yi sabatu ci di téere day ko suñu téere bu ubbi day may jàng day ma am xale ak affaire yi déglu rek mais bu ma ko déggee ci nga leen cheikh ak tedd nga ak may ma xale ak affaire yi daan bàjjoo bàjjoo bàjjoo léeg-léeg ma jàng leen fay suba kër yi day ma jàngal bu eskay day ma baas ci wa man raa ahada haadihi fi ndax ci amati leen si tamit am daf ci am ñoo xam ni yàlla daf leen may may lu rëy rëy ci ñu xamul moo tax dañoo jëm kaasi taalibe yi cheikh kenn teg dañ ormal sa morom na ko respecté na ko foofu لما تكسب السفينة خمر يأتيك في العباد يجب أن يمر أحد هذه الفئة في اليوم الذي أو الجمعة يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب لا ولا عتاب يقول بكر لما حكم مسلم مام على الدكتور يسد هاي ماي مين خلي يوحدي يوقف فيه yéen xale yi ku leen gis bés altine wala gis rek ci gars yi cheikh yi ñu ngi leen di baax a xam ci sallallahu alayhi wa dafa mënul ñàkk rek ndax bokkul ci ay teg yi taalibe di def mbaa muy wax lu wuteeg ndigalal sëriñam nga xam suñuy sëriñ ñoo ñu bu ñàkkee def bu nekk ñàkk jëfee ndigal tombe it pexe ñàkk lool waaye bu pexe amoon wala mu wóor ñu ne buñ pexee danañ mucc danañ pexe pexeem Xuraasaan ma mbokk ma da Xuraasaan buur la woon Xuraasaan di dëkku xam-xam nga xam ne ay dabaabu rek ñoo koy dëkkee kuñ fa far buur balaa nit ñi dina nangu li ñuy njëkk a def ak yow tàntal la tànt boo xam ne bu sore bu mel nii yéegal la ci kaw minbar ba nga waxtaan ak nit ñi ca xam-xam ci jàng ne kooku moom du ma ko boole kenn dama koy gën a xasida boppam tontal ko ca mat la am xasida ba ngay wax yaa ngi ñu xaali subatal imaani bu bi chaba wa ardi wal usraani dam doon wéti tari tamit yàlla yi maa ngi lay xamal ne turubun mashaayixi asnaduwa kulluha lil mustafa fi sirri wal ialaani misla tijaani misla tijaani say Tijaan a la ko tontee noonu la ko tontee ba mbir moom yegg ba ca beneen ne ñaareel asida ba mu commencé ko ñu ne ko mu mel ni koy daal ñun taalibe yi dafa indi mu waxee ci muraakish waaw moom mooy kan ba tax mu sañ a taxaw dina ci muraay mu arba moom mooy kan ba tax mu sañ a taxaw di acheter am na tukaay mu ne la daal indi mu wax ci benn jaahilun aw من لا يجب أكابر العباد أولا علمت بأن أهل الله لا يشتاهم إلا أبو الإذلال لنبقى قلبا يتلقن ويبقن موقفا كم يا وقن تأكل ما يابا جرت قريحه المهندة عذبا لأسقيه تحت أسقال بايقه وين سردا من موقف من أسقيه بوقتي لمن لمقتل ينتمي آه، لمن بموقت ينتمي كأذا كأذن زلافا آه، ديرها ضمعان دون لا يقرب عليك ابن الموقف ليغا خامل مو نان سيد احمد جان شريف رضي الله عنه احمد سبيل بني اضافه تونت مام خاي فوبو تي سانتال ابيا غنتي اسيان سيديا دا بوي دور تي ديرم بوي تونت ابن الموقف مي الحجاب المقتيه ديغا سيمي اخر وقتيه واي برا ne daf noonu buur ci laa jaaree wax leen gannaaw ko suñ ci Amady Tidiane Ranga gannaaw ba mu liggéeyee liggéey bu rëy bi dafa boole téere yéen ko taggat tontu yaa laabal dim laabal kon ci yaay yëpp sukk jëloon sëñ bi Amady Tidiane yi ne ko ba duur ne kam naa bi daamu xëyul yuqassiru fi huquqika wal hadaaya sëñ Amady Tidiane Chérif radiyallahu anhu ne nangu naa ko Ahmad Sukayri bi muy andi téere boobu bi muy andi téere boobu ci biir téere ngay wax jàpp moom it ci commencement ba ñu xamal xalifa te wa huna yaqulu muhibbuna mawla muhammad mabu radiyun ya zul ibaadi dina ko xamuñ kan la de bu ne naala alxilaafati fi tariqati an abi bi an imam aarif tijaani dina ko Ahmad Sukayri xalifa moom nan la defa kay soppe maa ngi ñëw ci garab yi ndax maam xalifa xalifa sa maam dafa ñëw nëpp def na ni damaa dem ca Seydi Ahmad Tijaani fu mu góotam ñu sell yéen nekk mu jox ma naanukaay ma naan ba màndi jël gaz boobu ma naanee woon tourné di naan dal samay taalibe fekk nag dafa bañ a wax maqaamam ni mu toll ndax mu kenn mënul xam maqaamam ni mu na su ko ne maa koy weer gis naa ko fa muy nangalee yu ay gaz xam nga man xalifa la waxoon wa min safaa'i buuri cheikhi mashrabuna bala ñuy wax ci maam xalifa ne mu ngay wax جهان زيان مبغا قمنا منكو دفت بحر الكامل فوردت هذا المدى عزبا ما أبو من والدي شيخ الهمان وجائي والعجائي قطب الزمان خليفة عن شيخه بعلومه وبزوده وصفائه ينبقوكم ويكلمون منع في الطريقة والحقيقة علمه بعد انتراس معالم الكرماء عبد الإله مؤملا لرضائه مصدر ملككم إلى فعل الله عبد مصدر لغاية مملكنا فعل ماضي لعبد الإله والسلام بيمينه بحر الندى وشماله بحر الردى للحب والأعلام maam xalifa waxal na boppam ne ndax tariqa tijaan ak jokk ci waliyu yàlla bu mu mën a doo surtout Cheikh Ahmada Tijaani radiyallaahu anhu du mën a wér lu dul ne wet jokk googa da nga am silsila bu lay jokkale ci moom mu nekk isna ak sanad bu ñu nee rek diw tijaan la wala diw moo am cër ci Cheikh Tijaan wala diw moo bëgg Cheikh Tijaan rek du doy waaye nag bala ñu wax ne diw moomu moo am cër dañuy xam nan lañ ko. بتوحيده وبتوحيد الكلمة ووحدة الصف وأساء هذه الوحدة المنفوذة في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إذا نحن بني آدم خلقنا من نفس واحدة فكيف يشق بعضنا عن بعض It is with the utmost honor that I stand here before you to speak of the literary work of a man we celebrate here today. He goes by the name of Muhammad Nasr, the son of Abdullah, and known amongst us as Khalifa Nasr, or Khalifa Muhammad Nasr, or Muhammad Aminata Nasr, or just Ubaidul Khawlafi. humble servant from Kola. The latter is how he defined himself as an introduction to his most renowned work, الجيوش الطلع في مرفحات القطع إلى ابن ميابة في He chose to attack a way of spiritual elevation, of knowledge, but not innovation, التجاريه is alive, the Ahbab are devoted, the Wadifa goes on, the Hadara lives on every Friday. We are on the righteous path and the awaited Mahdi will be the Tijani. Manam Mahdiyu, Tijani, bin Yabni Khar, bin Julid Yabni Khar, Tijani lana radon. Ali Bashir lana radon. Inshallah, I'm a Tijani Sharif Mokawar. in his attempt to criminalize us, to marginalize us in the Ummah. We are God-fearers, we recite his name, we pray upon the Prophet, we do istighfar, we are not criminals. It's him, Muhammad Khidr ibn Mayyaba, who was the criminal. He attacked us with pretentious argumentaries. But Khalifa assaulted him with the mounted armies and left him with no more pride. Khalifa is the spiritual soldier of the Ahbab. He lived in a troubled time of French colonial oppression and managed to help his father Abdullah, yes, to consolidate in our family base of ahead, Khalifa is our guide. Khalifa is our hero. Khalifa is our pride. That is the sole reason we stand here today. And since six years, every year, to remember the life, to remember the writings, the battles of Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad al-Amin, تاريخ جدنا العظيم. And it's with these words

mooy bis bu tedd bii tey ñu bëri xamu ko la 14 juin 1922 ci la rajab laay islam ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru Shawwal di sa àllarba nga jël génn àdduna xalifatul xaaji Muhammad muy lan guddi altine di bisab dimanche 1959. mu dëppoog ci weeru tubaab le vingt huit février waaye bu dee ci weeru wolof la ñaar fukki fan ci weeru wolof la ci la koy laaj boo xam ne dégg nga jël nag at mi Alaaji Abdoulaye Niass génne àddina muy vingt-deux ak at mi Xalifa Abdou Aziz Mouhamed génne àddina muy cinquante-neuf vingt-deux mooy cinquante-neuf quatorze la kon boo boolee quatorze loolu nekkee mooy tur yàlla ñu tuddee wahaabu kenn maam Alfadu Haaji Muhammad kenn ko yàlla dimbalee may ko ca maakayam looloo waral mu jur yabaahu yaa baru yaa musil xalaayiti yaa wahaabu yaa raasiku ataayaka diyani wahab lanaa karaman zaadan yuballighunaa ziyaarata bika qabla shay'in wal kon wahaabu ci la maam Xalifa Aali Muhammad ca la ko yàlla maye lam ko may waaye boo jëlee kat teg ci quatorze mu lay jox dix-huit boobu ci la la jàpp laa gis génn àddina mu ne ma xaj kon la jàpp laa gis kenn doon ko Xalifa Aali man ne am na soo dégg kër am na kuy sukkandiku ndax da wax dëgg yàlla ci àdduna si tey il faut que bëgg lu ma neex sax da nga naan naka ak ana njabootu Alxaaji Mouhamadou Amina Tay Ñas taw nga wax loolu xalifa bi moo wax ne Cheikh Oumar Foutiyou xalifa moo wax Cheikh Oumar Foutiyou kenn waxu Cheikh Oumar Foutiyou lu yéeme te boo leen ñu ci ne Cheikh mbeeram kilifa yi diine yi fi ne ci àdduna si kenn ku ci nekk ngay daal di ñëw Cheikh Oumar Foutiyou annoncé na ne da ngay ñëw ممكن في الاسطنبول شبه موجودين وكانوا وقت الشيخ موجودين عمر الفوتي المزيل للكفر برماح على نحور الحياه عمر الفوتي المزيل للكفر برماح على نحور الحياه متكئ انار الخلاف انار الخلاف وغربا وهو في الطريق بدر التمام نارا شرقا وغربا وهو في